askanu kayaar kër Abdou Ndoye mbaawaan ak yeneen i dëkk ci tundu jendeer di mbooloo mu takku ñoo teeru sëriñ Abdou Karim Mbacke ibnu Cheikh Mamadou Fadal bi mu yekk si ngir amal tànki nemmiku ci usine bii di Touba Protéine Marine Babacar Diallo mi nga xam ne mooy directeur général bu Touba Protéine Marine ànd naag sëriñ bi wan ko liggéey bi yépp leeral ko ko sàkku itam mu ñaanal ko ñuy ñaan sa dëkk gii secteur bii Mbacke njariñ li mu am njariñ ci doomu loolu faw xam ñuy ñaan li nga xam moom la ñuy jëgaane ci réewi nasaraan yi bay yar ay jën ak li nga xamante ne tey moom lañ fay jëggaan ci yenn produit yi te suñu borom man mënal nu ko mbàkkee nga ñaanal nu ko kon yëkka jël produit bi noonu di koy yóbbu Europe leen jaay farine de poisson ñoom ñu jëlaat ko defaraat bu ñu ko defaraatee jaayaatuñ ko ngir waa ANA li ñuy wax agence nationale de l'aquaculture di ci yar ay jën kon dañ leen koy jaay ñoom tubaab bi ñu defaraat ko am ay ferñeent yu ci yokk jaayaat ko lu seer ñaan nañ la mbàkke nga ñaanal nu ba ñun ñu dem ba di ko mën a defal suñu bopp di ko yaral suñu bopp di ko di ko lu ci bëgg a jëfandikoo ñu koy jëfandikoo te duñ soxla bitim réew. barke Alxaaji Fallu Mbakke. yaakaar ji mooy. yàlla yokk la rek. te sàmm la. bi ñu dalalee sëriñ bi ba noppi nag sëriñ Galas Jatara jotal na fa ay kàddu ci ndigalam soññe nag ci kuy wut lu baax ni mu war a waye deng ci ak jubloom ngir mën a yegg fa mu jëm. lii xuppee bari na. sëñ sëñ Basiru kan jàng nga ko léegi. Mhm. Eh, loolu Abu Sufyaan moo ko waxoon allazina xaaluhumu naasu ñaari naasoo fi am mhm. boobu Abu Sufyaan la inna naasa xad jamao lakum mhm. ah gars yi gaaw leen de waa Màkka nga dajaloo de gaaw leen ñi ngi ñëw seen kaw de faxsawhum na ngeen leen ragal xam nga loolu meen dolli mm. fasaaduhumu imaana jamono moo bari luy xuppee waaye kuy def loolu xupp nga ne pëccët ci ay xel ngay dëkk man wóor na ma ni dëgër nga dëgër nga dëgër nga ba samp fili waaye li tax muy dem mooy li nga yéene nit ñi fekk ci la ci moo tax muy dem. sëriñ Abdou Karim Mbacke ginnaaw bu mu nuyoog mbooloo mi nag wane mbégteem ci teewam fii ci Kayaar woona askanu Kayaar ci ñu ànd jàppalante bu baax. lu ngeen jàppoon Babacar rek na yokk man xam naa ne ci kàttanu yàlla. seen njàppeel ci moom bu yokkoo. yàlla da leen di boole yokk leen rek. yàlla da leen di boole moom yokk ko yokk leen. kon ànd leen rek. man dey wóolu naa ko. nee gone yi wax nañ ko ñi ci àndal wax nañ ko xam nañ ni. ab seggkat laa. ku mën a xam laa loolu yàlla moo ma ko defal yéen yéen waa Kayaar daal mag ñii fi nekk ak ñi nga xam ne ak si wuñu ñëpp maa ngi leen di ñaanal te di leen ñaanloo bëgg nag kër miin ngeen ñaanal ko bu baax a baax lépp day delluwaat ci yéen rek. donte sax yoon jox na ko dëgg ci li doxoon digganteem ak lenn ci waa kayaar Babacar Diallo mii directeur général bu Touba Protéine Marine wane na yéeneem ci ànd ak ñëpp bokk liggéey nii ko sëriñ bi wootee. population Kayar fi la bokk ndax ku investir ci ab localité mënatoo génn localité ba fa nga bokk kon man foofu appel bi. bu nee ñu ànd jàppale ma mooy nañu ànd liggéey rek laa dégg man boobu dégg laa ci am ndax dama investir pour jàppale nit ñi ñu ànd liggéey kon foofu rek la sëriñ bi wootee ci ñu ànd liggéey ak jaamu yàlla. te looloot maama ma ko woote muy sëñ Touba kon boobu appel la sëñ bi réitéré ngir taalibe bi yëpp ànd liggéey ak jaamu yàlla. ñu fexe ba def ay résultats yoo xam ne suñu commune dina jëm ci kanam. gën a redoubler d'effort nag ak gën leen woo xam ni mus duñu mus nekk suñu ay ennemis suñu ay frères lañu suñu ay mbokk taalibe lañu suñu ay mbokk jullit lañu amuñu benn wax lu dul ànd liggéey rek lañ leen di woo comme toujours noonu lañ mës a wax te loolu lañuy wax ba waaw. maire commune bu kayaar ak ñi nga xam ne ñëwoon nañu teewee si ngan gi fësal nañu ñoom itam seen mbégte. di bis bu màgg di bis bu tedd ndax jëwriñ xam nga ki xam moom lañ doon dalal day am solo ci diine ci diine ji mais day ko am solo aussi ci tarixa Mouridiya muy sëñ Abdou Karim Mbacke mu sëñ Fallou Mbacke ndax boo nee sëñ Fallou Mbacke rek mooy Sénégal. waaye mbégte mbégte xam nga Mouride moom ku ko andi doomi sëñ Fallou yow indi nga ko àjjana mbégte rek boobu Boubacar Diallo tey li mu def xamu ko sax yàlla xam na ne xamu ko ndax doomi sëñ Fallou ku ko andi tund jandeer andi nga ko xéewal mbégte rek tey moom dund naan àjjana waaw dund naan àjjana barki sëñ mbaam ba tey dañoo bàyyi sëñ it te ñëw ngir yàlla rek ak moom ak sëñ Abdou Karim mi nga xamante ne taxawal na ko si sëñ dëkk bi tey muy xéewal ñu am yaakaar lu mu wér ni ñun tey mbégte rek lañuy ñuy fanaane ak kontaan. dañu koy ñaanal yàlla yàlla sàmmal na ko. aaral na ko laqal na ko fa yàqeegul yàlla may ko gudd fan ak wér may ko njabootam yi fi nekk fii ci usine bi di fi liggéey ndax nit ku nekk ña nga ña fay nekk ñëpp moo leen jaboote yàlla na yàlla aar ñëpp fu ko bëgg àggale boppam ci ak usine bi ak njabootam yàlla na yàlla yóbbu ko fa